voilà donc euh, maanaam euh, li nga xam ne li moom la xale INEFJA yi def tey génn ñu leen dégg assemblée nationale euh, foog ñu àddu si te bu si dee àddu itam si ñaari bunt rek lañ si jaar bunt bu njëkk mooy jumtukaay yi ñu naan seen façon condition liggéey yi war a liggéey INEFJA moo doyul déggaat naa si it ñu ne daanaka ay fayontoon ndax yu ñu defoon daaw ak daaw jéeg la ñu dajale pour damu dal seen kaw loolu yëpp dara amu si ndax bu fekkee ne jumtukaay rek la. defe naa ren ku nekk Sénégal gis nga télé bi fi Serigne bay caam di ñëw ak li mu leen defar ren ñetti téeméeri millions dugal nañ ko si biir école bi jënd leen ñaari kaar yu bees jumtukaay dara manqué wu fi donc problème mu euh, jumtukaay yu njàng moom doonatul lay si INEFJA ndax fi mu ne pratiquement lépp a ngi fi pour élève bu bëgg a jàng mën a jàng si jàngu mucc ayib fayantoo ga ñuy wax ñun duñu ay fayantoo ñun euh, du ñu seen i sax euh, directeur waaye seen i papa la ñu parce que ay doom lañ leen considéré daaw bañ fi defee seen jombe yooyu ñuy wax man mii manqué nañ ma fi respect euh, ñàkk nañ ma fi teggin dem si directrice des études toj bureau ba euh, dem si bit biti professeurs yi ñu attaqué leen mais yooyu yëpp ba mu amee ba pare tam conseil de discipline daal di toog ñoom ñoo taxaw fii sax buntu école bu taxaw ne sama oto du fi dugg yooyu yëpp dañ si gëmm suñuy bët ndax ñoom ñëw nañu jéggulu ñu jéggal leen mu jeex loolu fàttewu nañ ko lii am kañ ren la am ñoom ñoo jógaat seen président bi ñu tuddee Seydina Mohamed Gueye woo ak juróomi xaritam ñu tëj benn xale bu ndaw si bu am fukki at ak benn si biir néeg ne daf leen a saaga ne dañ koy dóoral jubbantil seen bopp dóor ko dóor yu metti ndax xale bi nag dañ ko yeew dañu takk gémmiñ gi ba kenn mënut a dégg yuuxu euh, am na sax ñu ne dañ ko masse courant yooyu wax nañ ko si waaye ñun yooyu yëpp ay argument rek la ba loolu amee tam gaañ-gaañ yi papa ji andil nañu ko fi gis nañu ko andi na certificat médical am ba bëggoon porter plainte ñu waxtaan ak moom ba ñu wëcc léegi nag kuréel gi nga xam ne war a war a jóg si lu mel noonu bu amee muy conseil de discipline woo nañ ko daje nañu jàngat nañu mbir mi woo nañu xale yi ñu wax ñoom ku si nekk la nga def lan la ñoom ñëpp nangu nañu ne ñoo dóor jébbal nañ ko kilifa gi muy Serigne Mbaye Thiam ministre de l' éducation nationale jël na dogalu dàq leen dàq gi mu leen daq itam daf leen a dàq fii si INEFJA waaye dàqu leen seen école yi ñuy jàgge ndax nit yi loolu lañ dul xam fii INEFJA dañ fi ñëw di fi lekk di fanaan di fi jóg ak di fi di fi di fi fanaan ak yeewu mais seen école yi biir Thiès dañuy jàngee te école yooyu kenn dàqu leen fa maanaam dañuy continuer defi seen njàng si biir école donc euh, wax ji yëpp euh, du dara du càggeenu fayantoo du ñàkk jumtukaay du dara xale yu xam ne jàdd nañu yoon la war nañu ak yaradiku yoon dal di dal seen kaw loolu rek mooy mbir mi. Ousmane Niang la tudd maa ngi classe terminale euh, Jules Sagna nekk pensionnaire aussi ci INEFJA. voilà donc je pense que xew-xew bi am tey mooy euh, suñuy camarades yoo xam ne par accident dañ jotoon dal ci benn xale jotoon ko gaañ par la suite nag ci histoire boobu lañ topp ba ñu sanctionné leen ci daal di leen di exclure léegi nag ci exclusion boobu ñun euh, dañu nekkoon ci logique gu dox pour ñu dimbaleen pour mën a alléger euh, décision bi parce que c'est vrai que décision la bu metti boo xam ne ñun ñëpp neexuñu parce que INEFJA du école. mais au la de cette école li nga ciy gis aspect éducatif bi famille la itam donc famille boobu peut-être boo xëyee ñëw bëgg a tas ab famille c'est vrai du neex wante nag nekkuñu ci grève parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo ko def ils ont reconnu les faits donc nit ki bu nangoo li fa des mooy mu jéggalu ki ngay jéggal nag doo ko exiger jéggal bi ban façon jéggal lay doon mais nag logique boobu lañ ne mais nekkuñ ci grève d'après ce qui est dit ci presse bi nous ne sommes pas du parce que mënuñu grève y a pas mais dañoo nekk kay ci di wut ak di quémander ministre bi kii mu revenir at ci décision boobu noonu loolu rek la du leneen voilà. Mhm.